taala laa cant yàlla laayam di ñaan mu doon la séewal ak nit bu ak barke ak pexe ci ñun dem bu tedd ci ñun yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñu nga am mbégte bu rëy dajeeg suñuy mbokk bi nit ci place bu tedd bi ngir jooxe taxawal ko waxtaan bu am solo lool bu jëm ci ash-shahadataani wa tahqiqu maanaaha muy ñaaru baati seede yi nga xam ne moo tënk diine lan lay firi lan mooy sart yi lan moo koy yëwnal ngir ñu xam ko tënku jëf lan moo ko mën a dàqal ngir ñu xam ko mooy ko muy waxtaan bu rëy ñu koy taxawee mooy cheikh ak docteur Ahmad Ahmad Lo hafizahullah muy sunu sëriñ bi ñëpp xam teew naa dunga boo moom ngay defal ñu yàlla la defal ko tawfiq ñu ngi tudd kilifa yi nekk yëpp waaye kenn bu tuddee kenn rek dina doy ndax wax bi dafa xaw a dem lu bëri ñu ngi dalal sunu waajur suñu kilifa muy duuru ñaaña fay moo toog dafa jàppoon mooy délégué quartier bi moo fi teewal maire bu parcelle mu koy tàggatal mu koy dalal bu ko tuddee rek tudd nañ kilifa yëpp amaana bu wax bi desee ñu tudd ñeneen kon incha allah moom bàyyi Cheikh ak docteur mu tàmbali waxtaan bi fa leen tafaddal mashkuran mahduran إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ak responsable yi kenn ku nekk ñu di la wàcce place ba nga xam ne moom la la sa borom teg di ñaan borom bi tabaraka wa taala jataay bi bokk ci jataay yi yiw yi ak jataay yi njëriñ yi xam naa ne comme niñ ko gisa doonul ñëpp waxtaan bi daa waroon a tàmbali ci fukki waxtu ak benn bi muy jotit alhamdulilah te la ñu fekk waaye ci lu aju ci wàllu organisation ak ci dogalu sunu borom yeex ma ba lu ëpp waxtu manqué na ci su ko defee liñ waajoon a waxtaane dañ koo tënkoon ci ni waxtu wi waroon a toll danañ jéem a xool nu ñuy def ba liñ tënkoon lenn lu ci nekk nu jaar ca ci aw jaariin woo xam ne dana wuute ak détail bi nga xam ne moom lañ ci naroon a def waaye nag danañ tànn lañ jàpp ne mooy la ci ëpp njëriñ ñu wax ko nga xam ne dana yóbbaale la ca des borom bi tabaraka wa taala bim bindee bindee fii bind doomu aadama ñuy ñenn ci biir bindeef yooyu yi seen maam aadama ak xawwa daf leen a bind yóbbu leen àjjana malaaka mu ñuy wax iblis wala jinne bi ñuy wax iblis iñaane leen foofee ñu nekk gannaaw boo xamee ne borom bi tabaraka wa taala digal na mboolem malaaka yi ñu sujjóotal aadama moom mu lànk bi mu ko gisee àjjana mu ñëw def ay jax-jaxal ba def loo leen luñ doon tere ñu def ko sunu borom tabaraka wa taala génne leen àjjana indi leen fii ci àdduna won leen ne natt woon naa leen fële kat ngeen juum waaye yéen ak seeni sët danaa leen nattuwaat fii ci àdduna ku juumaat nag bu ma la jëlee fii fi ma lay yóbbu moom du mel ne àdduna sawara lay doon wala yaasu billaah mooy yees lépp ku juumaat liñ ci jublu mooy ku lànk bañ a topp ndigali yàlla yi ki jaar ci siraatul mustaqim nag dama lay jël jàlloowaat la ca àjjana ja sa maam nekkoon sa maam aadama loolu mooy résumé li nu indi fii ci kaw suuf dañ nu fay indi dina natt dinu nattu ba xam buñ fi jógee dañuy delluwaat fa sunu maam aadama nekkoon muy àjjana wala wala yaatu billahi des fi jógee dem sawara yàlla bu ko yàlla dogal borom bi tabaraka wa taala yebal mboolem yonent yi am ay kaddu yum leen jox ne leen su ngeen di woote tàmbalee leen ci lii lool yi nag képp koo xam ne wax na ko ci aw làmmiñam dund ko ci ay cëram mu nekk ci ab xolam kooku moom xam leen ni ci waa àjjana lay bokk kàddu googu yi di laa ilaha illa allah amul benn yonent bu yàlla masa yónni lu dul woo nga sow nit ci kàddu googu yi ba ci sunu yonent bi ci mujj sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon yow mi wax laa ilaha illa allah sa boroom bégal na la ci ne da ngay dellu àjjana ja sa maam aadama nekkoon boo faatoo yóbbaale kàddu googu yi waaye nag ndax da nga koy wax ci làmmiñ rek daal di mujj ñu ne ah déedéet daa am ay sart dafa am ay charte charte yooyu yi boroom xam-xam yi danañ ko di lim lim siiwee mooy juróom-ñaari charte la waaye li wér mooy juróom-ñetti charte la kon am na juróom-ñetti charte yoo xam ne ki ko dajale laa ilaha illa allah dana ko mën a jariñ ëllëg maanaam dana ko yóbbu àjjana charte ba ci jëkk al ilmu bi maanaaha nafyan wa isbaatan la ci jiitu mooy war ngaa xam laa ilaha illa allah jii lu mu wund lu mu wund maanaam lu muy firi ab xam-xam bu aju ci laa ilaha illa allah nag borom bi tabaraka wa taala moo jëkk a waxub yonentam ne ko faalam annahu laa ilaha illa allah wastaxfir li danbik wa lilmuminina walmuminat wallahu yaalamu mutaqallabakum wa maswaakum nee na na nga xam laa ilaha illa allah xamal ne laa ilaha illa allah loolu ab yonentam la ko wax baatu xam-xam la jëfandikoo foofu ci xadiisu Usmaan ibni Affaan radiallahu taala anhu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man maata وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كفات تيبال خم خم لا إله إلا الله نانا دغاي دوغو أجنة kon nag xam-xam boobu jaadu nañu xam lu mu wund xam-xam bi mooy lan ñaari tënk la laa ilaha ak illallah moo tax dañu wax ne naf yu la ak isbaat laa ilaha day dàq day wone ne buur amul ku ñuy jaamu muy yeyoo jaamu amul ku ñuy jaamu muy dagan amul ku ñuy jaamu di mucc amul illallah ku dul yàlla kenn kooku rek kon da ngay dàq dara ba noppi am loo saxal te diine léppam boo ko seetee ñaari béjjën yooyu la am béjjënub dàq ak béjjënub saxal moo tax lépp lu di neen da nga koo war a weddi lépp lu di ay caaxaan da nga koo war a weddi ngir nga mën a saxal lépp loo xam ne ak dëgg la moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne faman yakfur bi taaxuuti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa da ngaa war a weddi lépp loo xam ne lu ñuy jaamu la te yeyowul ñu koy jaamu moo xam ay bant la moo xam dañ koo tabax moo xam doomu aadama la moo xam sax alal la moo xam lu mu mën a doon loo xam ne àgg na ci xooli doomu aadama yi ci jaamu loola yow jógal nga weddi ko weddi gu leer naññ boo noppee nag nga déclaré sa ngëm sa borom tabaraka wa taala kàddu googi ci la yàlla yebal yonent yi mës a jiitu yépp niñ ko waxe wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun nee na ko musumaa yónni lu la jiitu ab yonent lu dul wàcce naa ci moom ne ko laa ilaha illa allah ne ko man dong maay buur bu yeyoo ñu di ko jaamu man dong maay buur bi nga xam ne sañees na ma jaamu jaamu ma sax dafa war nuux ak huud ak saalix ak yeneen yonent ñenn ñu ci ne bi leen yàlla yónnee lañ njëkk a wax yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin xayru loolu lépp laa ilaha illa allah lay firi yaa qawmi abudullaha jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla ma lakum min ilahin xayru ma lakum min ilahin gayru mooy tolloog laa ilaha illa allah amul kenn ku ñuy jaamu jaamu ga di jëriñ wala muy ñàkk a lor lu dul borom bi tabaraka wa taala leer na naññi ci biir alquran borom bi tabaraka wa taala ne yonent yi mu yónni yëpp kàddu gi lañ yoroon di ca woote ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت nee na mboolem yonent yi da leen a yónni ci seeni nit lu ñu fa doon wut jaamu leen yàlla te weddi xiram ak lépp loo xam ne lu ñu jaamu la te yeewut jaamu Ibrahima alayhi salaam ba tey ci piri yi nga xam ne rek alxuraan mi ngi nuy war laa ilaha illallah ni muy ni muy wëlbatikoo yor menn maanaam yi ci laay yu bare bari di jaar ci loxo yonent yu bare bari ibrahima alayhi salaam borom bi nee na wa id qaala ibrahimu li abihi wa qawmihi inni baraaum mimma taabudun nee na ibrahim dafa wax ak baayam ak aw nitam ñi nga xam ne dañ koo yónni woon ci ñoom mu ne leen innani baraaum mimma taabudun man day set naa wecc ci li ngeen di jaamu loolu mooy tolloog laa ilaha illa allah mooy tolloog laa ilaha inni baraaun mimma taabudoon man day seet naa wecc weddi naa lii ngeen di jaamu yéen ñoom luñ doon jaamu ay xiram lu mu ca teg illa alladi fatarani kooku mooy illa allah kon laa ilaha illa allah ay anam yu bare bare bare la dikkee ci biir alquranul karim wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyaahu borom bi tabaraka wa taala santaane na nga bañ a jaamu mooy laa ilaha illa iyaahu mooy illa allah boo toppee alquran karim da ngay gis laaye yu dul jeex yoo xam ne maanaam laa ilaha illa allah la yow waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara laaye yooyu yëpp boo ko seetee li muy firi menn maanaam rek la mooy laa ilaha illa allah borom bi tabaraka wa taala nag bu fekkee dañoo settantal li borom bi tabaraka wa taala wax ne faalam annahu la ilaha illa allah na nga am xam-xamu li laa ilaha illa allah di firi nga xam ko da ngay day daal di leer ne yoon wi jëm ci xam ko am na ay tomb yoo xam ne tomb bu ci ne nit ki war na koo xam ndax laa ilaha illa allah ji ni mu ko xamee mën a nekk xam-xam bu wér bu njëkk ba mooy mu xam ne yàlla rek mooy yeeyu ñu jaamu ko keneen yeeyoowu ko jaare ko ci settantal turam yi ak melokaanam yi ak jëfam yi muy mbindeef yim bind ak mataay bi mat gisul borom tabaraka wa taala mat nga xam ne dañ koy xamee ci li mu bind màggaayam fa sunu borom tabaraka wa taala nekk ci màggaay xel munu koo xalaat xoola bindeef yu xarañ yi ngay gis rek ak li doom aadama àgg tey ci di ko liggéey ci mbir ay ay yëf yoo xam ne day boole dara ak dara ba mu wëlbati ku doon leneen ba nga jàpp ne bindeef yi moom àgg nañ ci xarañ foo xam ne jéggi na dayoo ba mbindeef mu ca gëmul yàlla sax mën nga yàlla yàlla lu ci kaw nit ñi ngir xarañ goo xam ne xarañ nga ko ci la ngay bind te mbindeef moom yi kat li muy xarañ xarañ xarañ borom bi tabaraka wa taala jox na ko leçon boo xam ne bu doon xalaat dana xam ne kon bu yàlla da ko mosal tuuti ci xam-xam ak ci man-man ak ci ak xarañ mbindeef moom yi bu xoolee li weesu ci moom dana gis ne am na jamono yoo xam ne mi ngi doon dund fii te yëgu ko juddu na lu gàtt gàtt ba dund am at mu tegal yëgul lu xew ñeneen a ko yor di ko toppatoo di ko lijjanti diggante bi mu jàng fi ba xaraña dara su fanam guddee borom bi tegaat na beneenub luwaa boo xam ne du ko mën a jàdd muy waman nu ammirhu nunakkisu fil xalq jamono day dikk muy dem di dem di dem ba mu yàgg duutu xàmmee nday jooram ak càmmoñam ana xam-xam ba xarañteef ga yañ doon wax naa moo ko fent ak moo fent courant ba ak moo fent nangam ak moo xam ne suuf si nii la mel ak asamaan si ne yooyu yëpp dem na bi muy ñëw indaale wu ko woon bi muy dem àgg na ci diggante boo xam ne yóbbaale wu dara ci xam-xam kon as xam-xam su tuuti la yor soo xam ne as diggante su gàtt la wa ma utitum min al ilmi illa qalila mu xam ne nag kenn ki nga xam ne moo bindoon koo kii di cëpp-cëppi bel ne am na xam-xam te yooyee mu defaroon ba jàpp ne lii day wone ab xam-xam yooye yu yàlla bind la jël di boole lii ak lee ba mu jur la ca des waaye du moom moo bind dara nit sàkkul dara kon settantal turi yàlla yi ak i melokaanam ak i bindeefam li muy jural nit ki ci xam ne laa ilaha illa allah bari na lool ñaareel ba mooy xam ne bind ak settantal lenn lu nekk nam koy bindee melokaan wam koy jox borom bi tabaraka wa taala rek moo ci wéet yow sax ni nga mel binde woo noonu sa bopp amaana sax tànnoo ko li nga doon dañ la ko tànnal góor nga wala jigéen yàlla moo la tànnal la nga doon bi nga doonee góor ba noppi na nga mel da ngaa gudd ak da ngaa gàtt ak da ngaa rëy ak da ngaa tuute ak da ngaa am xam-xam da ngaa am xel da ngaa gàttum xel yàlla la tànnal na nga mel kon borom bi mooy teg plan bi muy bind nit ki bu noppee bind ko ci lu dul nit it nag noonu ndax yeneen yi ci des yëpp yàlla da leen a bind te kenn ku ne dafa am nu mu la bindee kon li ñu tuddee al xalqu wa tadbir borom bi tabaraka wa taala moo ko jagoo ñetteel ba mooy xam ne gépp xéewal gu doom aadama am borom bi tabaraka wa taala moo ko jox tàmbale ko ci xéewalug dund xéewalug wér gi yaram xéewalug wér gi xel yori bët yuy xoole ay nopp yuy dégg ay tànk yuy dox làmmiñ wuy wax yooyu yëpp ay xéewal la nga door ke dolli xéewal yi àdduna ya la ngay lekk ak la ngay sol ak la ngay am ci alal ak yooyu yëpp xéewal yu jóge suñ borom tabaraka wa taala muy lu aju ci àdduna muy lu aju nag ci diine sa gindiku ci siraatul mustaqim topp yoonu yàlla di jàpp di julli di woor di aj di joxe asaka di def lu baax di téye saw làmmiñ ci lu saw yoon nekkul yooyu yëpp su la ko yàlla mayee xamal ne xéewal bu jóge ci moom la ndax am na ñeneen ñu mu ko xañ loolu jullit bi xam ko dana tax mu xam ne laa ilaha illa allah dana ko jural ne moom mi buy sant yàlla lay sant waaye dii su ko jox xéewal mu ne jërëjëfe diw jërëjëfe yàlla rek lay mën a wax lu tax mooy xam na maanaam laa ilaha illa allah ñeenteel ba bokk na ci li tax mu xam laa ilaha illa allah mu xam yi ñuy jaamu te duñ yàlla niñ ñàkke solo ak niñ suufee ak niñ doyadee xëram woo xam ne yow yaa ko yat defar ko ba mu jekk nga diw sotti ci say farton boo xëyee di ko sujjóota Omar ibnu Xataab radiallahu taala anhu dafa mos a toog ba mu yàgg muy ree ñu laaj ko lu xew mu ne dafa fàttaliku bis boo xam ne dafa am xërëm yuñ defaroon waxul ni ñoom ñoo ko defaroon ay xërëm yoo xam ne dees koo defar ci fariñ lañ ko defare nee na ñu dem ba xiif bi mett metti ñu xëccoo ko daal koy lekk fii lekkub loxo fii lekkub tànk fii lekkub tof ñu lekk yàlla ja dem seen yoon bëkk démb rek ci inondation yii di am nii gis naa benn image boo xam ne ay nit ñoo xam ne taw bi dafa ñëw ndox mi di baawaan ñu fëkk seeni xëram yor leen di daw di ko yóbbaale xanaa kay bu fekkee yàlla la ji ñuy jaamu moom moom la war a xettali waaye yow mi muy jaamu yow mi koy jaamu faf yaa koy xettali ba du ba du dem ci ndox mi kon suufeek doomu aadama mënta weesu di jaamu loo xam ne foofu la toll boo ñëwee ci doomu aadama yi nga di ko jox lenn ci cërub yàlla noonu rek lay demee doomu aadama ku doyadi la koo xam ne yeyowul dara dara dara ci loo xam ne cërub yàlla la doomu aadama bi muy juddu yéen doomu aadama yi yéen a tàllal seeni loxo mu juddu ci seen kanam yéen a ko yor di ko di ko yar ak kum mën a doon na ba mu nekk mag ba mu génnee àdduna yéen a ko jël tëral ko di ko sang yéen a gasum pax ba mu ko ngeen suul ko ca dem seen yoon kon kooku diggante boobu luñ ko fi yëkkatee ba di ko jaamu nit xam-xam boobu muy doyadi li ñuy jaamu te du yàlla bokk na ci liy jural nit ki mu xam dëgg dëgg dëgg lan moo di laa ilaha illa allah ba tax borom bi tabaraka wa taala bi muy wax ci xila bi dafa ne in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum su ngeen dikkee di leen ñaan nee na seenu ñaan ñoom duñ ko dégg li ngay ki ngay ñaan mu di aw xëram boo xam ne amuti nopp amut jëriñ kooku du dégg xabru buñ suul fi béréb nga ñëw tàllal say loxo ne da nga koy ñaan déggut li ngay ñaan in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum walaw sami'u ma stajaabu lakum te it seen ñaan googi ngeen di leen ñaan te xam ne loolu bokkaale la ndax yàlla rek lañ war a tàllale loxo di ko ñaan nee na su fekkoon ne yàlla dogal na ñu dégg seen ñaan googi ngeen di ñaan taxaw fa xabru ba wala ca kanam xiram wa tàllal ko say loxo mais su ko dégg nit mënta nangu sa ñaan ndax amul dara moom kay lim soxla mooy ku ko xett li moom ci boppam su fekkee ne nit ku baax la mu ne wa yawmal qiyaamati yakfuruuna bi shirkikum mu ne seen loxo yi ngeen tàllal di leen ko ñaan bu ëllëgee ngeen taxaw fa seen kanam boroom ñoom ñii ngeen di ñaan danañ weddi seen bokkaale gi wax leen ne lii ngeen di def noonu digalul leen ko woon bu fekkee ñu baax la ñu woon mu teg ci ne wala yunabbi'uka wala yunabbi'uka mislu xabiir mu teg ci ne mu teg ca ne wala yunabbi'uka mislu xabiir mu ne amul kenn ku la mën a jox ab xabaar bu wéree ne xabaar bu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy xabiir mooy ki dañ kumpa ki amul dara dara dara ci kumpa kon yan ci yëfa ngi yoo xam ne lu ci nekk dalay wan ne kudul yàlla war si ko ñaan ki ngay tàllal say loxo te du yàlla nee na du ko dégg su ko déggoon munu laa nangul sa ñaan te it ëllëg da nga leen taxaw ci seen kanam borom mu ne la bokkaale gii nga doon def de man santuma la ko yaa ko defal sa bopp te it nag la ko ñeenteel mooy xamal ne wax jii mu yett yi jaar ci la ko wax mooy alxabiir ki nga xam ne dara fàdduwul ci kanamam muy sun borom tabaraka wa taala ba ca tegu moo di sunu borom tabaraka wa taala li mu won nit ñi ci dénd bi ñu nekk muy li ñu tudde alkawn muy univers bi ak li fi nekk nga xam ne boo xoolee li ngay gis ak la nga dul gis li ci ne ci ay kéemaan yoo xam ne yépp sunu borom tabaraka wa taala moo leen bind loolu bokk na ci li tax nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala kenn rek la mën a doon koo xam ne amul ku ko ñaareel yàlla xam na ne li yàlla bind boo duggee ci yi nga xam ne ay xam-xam la yu ci aju muy lu mu bind ci jaww ji mu nekk te doo leen teg bët ak li mu bind ci biir géej gi ñu nekk fa di fa dund ak lim bind ci jaww ji ci kaw asamaan ci ay xeeti biddiw ak ay planète ak yu kenn xamul yoo xam ne lenn lu ci ne ay nangami million lañ yoo xam ne seeni leer ak seeni tàngoor am na ci yoo xam ne ñoo gën a leer sun jant bi gën leen a tàng waaye sori waaye ba mooy tax leer ga du fi agsi tàngoor bi du fi agsi boo ko seenee bu guddi lu tuuti lay doon di xoy xoy nga defe ne as mbiddiw lay doon suy tolloo ko tors fekk nangami million la gën a tàngee sun jant bi gën ko ko réye waaye fa mu nekk kenn xamul ñaata at la ci ati leer kon kooka ka bind yooyee yépp nga xam ne jëmmi suuf ci boppam ak li ci biiram daanaka dafa toll ne aw fet kon kooka moomeelam nga ak ak yaatu na yaatu boo xam ne su ko doomu aadama su toogee di ci xalaat dana xam ne daal laa ilaha illallah wa warta génn àdduna te yóbbaale wu kon sart bi jëkk ci laa ilaha illallah nga mën cee jëriñoo jaamu yàlla bi xamal ne maanaa mi mooy lu ñuy tudde jaamu moom kenn xalaatu koo defal kenn ku dul ki nga xam ne moo bind bindee fi muy suñu borom tabaraka wa taala sartu ñaareel ba dañu wax ne mooy al yaqin yaqin mooy baat bi bi nga waxee ne ashhadu an laa ilaha illallah seede naa ne amul kenn ku ñuy jaamu muy yeeyoo jaamu ku dul yàlla loolu yi nga wax da nga ci am yaqiin maanaam du wax joo xam ne day tegee ci aw làmmiñ waaye wax joo gëm la war a nekk kon yaqiin mooy nga gëm ne lépp lu yàlla santaane ci téereem bii wala mu jaarale ko ci yonentam bii ci ay ndigal ak i tere wala ay xabaar ci lu weesu ak ci liy ñëw lu aju ci yowmal xiyaam wala mu aju ci ajjana wala mu aju ci sawara wala ci jaam beeg na muy jëflanteeg jaamam yeeg ay njëggal ak ay mbugal ak yooyu yépp nga boole ko gëm ko mu nekk yaqiin joo xam ne doo ci am looy sikki sàkk ndax sikki sàkka ci ngëm yàlla su ca duggee daf koy yàq day yàq tawxid tawxid laa jub sikki sàkka yaqin rek la mën a àndal moo tax borom dafa ne innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu ñi gëm yàlla gëmu gëmub yonentam te amuñu sikki sàkka ci loola wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika hum sadiqun ñi dëggu te am yaqin mooy ñi nga xam ne amuñu sikki sàkka ci laa ilaha illa allah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu muslim dafa wax ak aba hurayra radiallahu taala anhu ne ko man laqita min warai hada alxaid yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu biljanna nee na ko yow abu hurayra génnal koo dajeel fii nee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ne ashhadu an laa ilaha illa allah ab xolam am ci yaqiin ab xolam am ci yaqiin maanaam ak wóolu nee na kookee fa bashirhu bil janna bégal ko ne ko ci waa àjjana la bokk kon ni nga xamee ne xam maanaam laa ilaha illa allah mënta ñàkk am yaqiin ci li laa ilaha illa allah di tegtale it mënta ñàkk xadis yi koy tegtale bari na lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ne ci beneen xadis ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah la yalqa allaha abdun bihima gayra shakkin fihima illa xaramahu allahu ala annar nee na amul benn jaam boo xam ne da nga dajeeg sa boroom yóbbaale ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te amuloo ci benn sikki sàkka nee na lu dul sa yaram wi araam na ci sa waram mu di ko lekk lu am solo la loolu moo tax yaqiin ci boppam muy wóolu ak ngëm gu dëgër am solo gim am solo moo tax yàlla am na lu mu leen jagleel ñi am yaqiin maanaam ahlul yaqiin borom bi tabaraka wa taala jagleel na leen ay jagle yu bari bokk na ca mooy ñoom ñooy mën a jariñu ci tegtali yàlla yi ak kéemaan yi nga xam ne da koy wàcce ngir nit ñi waaru ci moo tax daf ne wa fil ardi ayatun lil muqinin nee na suuf si day ay kéemaan yu bare ngi fi waaye ñan ñoo ciy waaru nee na lil muqinin ñi nga xam ne dañoo am kóolute waqaat ne qad bayanna al ayaati li qawmin yuqinuun nee na leeral na mboolem kéemaan yi nga xam ne daa war a waar doomu aadama yi waaye ñan ñoo ko tax a jóg nee na li qawmin yuqinuun nit ñoo xam ne dañoo am kóolute ñaareel ba mooy ñoom ñooy texe ñooy ñi gindiku itam moo tax borom bi tabaraka wa taala ca njëlbeenu baqara dafa ne walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflixuun ñi nga xam ne dañoo gëm li ñu wàcce ci yonent bi ak li ñu wàcce ci yonent ya ko jiitu woon gëm àllaaxira nee na ñooñu ñooy ñi am kóolute ci ne àllaaxira ñi ñëw kon ñooñu ñoo am yaqiin lu mu ca teg nee na ñooñu ñooy ñi gindiku ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflixuun kon ñoo texe ndax ñoo gindiku ñoo texe ndax ñoo gindiku ngir yaqiin yi nga xam ne dañ koo am ci li borom bi tabaraka wa taala joxe ahlul yaqin muy ñi nga xam ne dañoo am kóolute it ñoom la sunu borom tabaraka wa taala di may aw lay wu dëgër ëllëg suñ leen di laaj moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis gudd boobee nga xam ne dafay nettali nit ki su nekkee ci ab xabroom bañ koy laaj xadis ba ca loolu lay wax nee na ñaari malaaka yi buñ ñëwee dañ koy yëkkati mu toog ñi di ko laaj yow koo doon jaamu kan moo doon sab yonent nee na mu ne dama doon jaamu yàlla daa dina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it indi na ay lay yu dëgër nu gëm ko topp ko yonent bi ne loolu mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ne yusabbitu allahu alladina amanu bil qawli sabiti fi lxayati dunia wa fi l'axira koo kii nga xam ne daa nekkoon ci njub buñ ko laajee mu tont tont lool yi yonent bi nee na mooy tolloog li yàlla wax ci laaye jooji yi ni ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla seenu ngëm dëgër yàlla daf leen di dëgëral ñu am lay wu dëgër ca karam malaayika ya waaye fii ci àdduna ak foofee ca àllaaxira mu teg ca alayhi salaatu wasalaam mu ne fa yuqaalu lahu ñi ne ko ah kon nag alal yaqiini xayiita wa alayhi mutta wa alayhi tubas summa yuftaxu lahu baabun ila aljanna dañ koy daal di wax na ko yow mii kon ci yaqiin nga doon dund bàyyil xel bu baax yaqiin yow mii ci yaqiin nga faatu yow mii ci yaqiin nga dekki nee na ñu daal di koy ubbil ab bunt boo xam ne ci bàmmeel bi lay jóge def direct ci àjjana bunt ñi daal koy ubbil bunt mais su ko defee ñu ubbil ko bunt boo xam ne day mel lépp tiwo bu jógee ci bàmmeel bi dem àjjana yaatalal ko bàmmeel bi ba mu yaatu lool ba bu xoolee du seen sax fam yem kon loolu loolu xéewalu xabru la waaye nee na su fekkee ne daa bokk ci ahlu shakk ñi doon sikki sàkk nga xam ne amuñu yaqiin nee na buñ ko laajee koo doon jaamu ak kan mooy yonent bi nee na li muy tontu mooy laa adri xawma ko kat sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu dama dégg nit ñi ñuy wax rek ma wax lu mel ne la ñuy wax nee na luñ ko cay tegal fa yuqaalu lahu ala shakki xayiita wa ala shakki mutta wa alayhi tubas ñu ne ko yow kon sa dund ci sikki sàkk nga nekkoon ci nga dee ci lañ la dekkal summa yuftaxu lahu baabun ila nnaar nee nañu ubbil ko ab tiwo moom boo xam ne sawara lay jóge ba jokkoo ak bàmmeel bi wa yusallatu alayhi aqaaribu wa saabiin ñu xiirtal ko ay jiit ak i jaan yu fees dell ci biir bàmmeel boobee mu ne jiit yooyu ak jaan yi law nafaxa ahaduhum fi dunya ma anbatat shay'a nee na jaan yooyu buñ fuuftandiku woon rek fii ci àdduna benn yoon mooy noyyi nee na suuf si duutu sax dara suuf si duutu sax dara bu dee lum taw taw dara du sax li woon ci kaw te tooy lépp day dee ndax tàngoor wu metti ca nooyee génne ca bakkanu jaan ja wala jiit ji wala yaasu billah ahlul yaqin ba tey ñooñu ñooy ahlul imamati fi diin su fekkee ne muñ nañ boole ko ak yaqin borom bi tabaraka wa taala nee na ñooñu ñooy njiitul nit ñi ci kaw suuf borom bi ne wa jaalna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun nee na ñii laa def ñu doon njiiti doomu aadama yi ci kaw suuf ñu di leen gindi ngir ñaari melokaan lamma sabaru mooy bi nga xamee ne ay muñkat lañ wa kaanu bi ayatina yuqinuun ñi nekk itam ahlul yaqin kon yaqin ak muñ ci la ñuy amee ak jiite ci diin cheikhul islam ibnu taymia am na risaala bu mu bind boo xam ne noonu la ko tuddee bi sabri wal yaqini tunaalul imamatu fi diini noonu la ko tuddee yaqin nag ñi ko am am na nuñ leen di xamee ba ci jëkk mooy mulaazamatu liqtidaa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam taqoo roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bañ a mooy ndigalam ñaareel ba mooy yaqiin mooy tax adduna ak li ci biiram mën a tuuti ci kanam nit ci xadisu jaabir ibn abdillahi radiallahu taala anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ci kanam noon yi jihaad yi di bëgg a tàkk diggante jullit yi ak yéefar yi am benn jullit ci biir jullit yi mu ne yow yonentu bi yàlla bi su fekkee ne damaa xeex bañ rey ma fu ma jëm mu ne ko ajjana ajjana nee na fekk mu yoroon ay tàndarma di ko lekk mu sànni ko àggalewu ko daal di dugg ci biir géew bi di xeex bañ rey ko xadis boobu mu ngi ci buxaari ak muslim tayit yaqiin mooy tax nit ki mën a muñ ndigali sunu borom tabaraka wa taala ak lu mu diis diis ci bakkan kenn ku nekk xam ne ndigal yi am na ci yu diis jihaad fi sabilillah lu diis la boo demee ci qisasul anbiya da ngay gis ay kéemaan ku mel ni ibrahim alayhi salaam ñu rendiloo ko doomam yaqiin rek moo mën tax nit nangu loolu yaayu Moussa alayhi salaatu wa salaam ki nga xam ne firawna la dajeel jabar ya nga xam ne ay xamkat lañ ñu ne ko ki lay ki lay rey ki lay faagaagal ci at mii lay judd te góor lay doon mu ne kon bépp liir bu judd tey góor nañ ko rey joxe ndigal loolu ñi di ko def yaayu Muusa am doom muy góor mu am njàqare lool borom bi tabaraka wa taala xamal ko ci anam nga ko soob ne ko nampalal sa doom su fekkee ne sam xel dalut sànni ko ci géej gi wala yooyu yaari ndigal a ngi foofu nàmpalal wala nga sànni ci géej waaye nag mu tegal ko ca ne ko wala taxaafi wala taxzani bul ragal bul tiit kon ñaari tere ngi foofu inna radduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin man maa la koy delloo maa koy def mu doon ab yonent tam yaari ndigal ñaari tere ñaari dig digal na ko ñaari ndigal ardiihi nàmpalal fa alqiihi fil jam wala soobee nga sànni ko ci géej ñaari tere yi bul jàq bul tiit ñaari dig yi mooy soo ko sànni woon ci géej gi it maa la koy delloo si maa koy defub yonent yaayi Moussa daal di am yaqiin ci li ko yàlla wax jan yaay mooy xalaat fab doomam jim jur sànni ko ci biir géej ñu dem su ko géntee dana ne lii ci seytaane la jóge su daje woon ak dara sax mu ne ko malaaka la yàlla moo ma yónni moo ko wax ba noppi mu ne lii seytaane la lu dul ahlul yaqiin ñi am yaqiin ci ay firnde yu wane ne lii ci yàlla la jóge ba noppi gëm ne yàlla lu mu wax dana ko def mu jël doomam sànni borom bi tabaraka wa taala defe ko nam ko waxe woon fab kañ ne woon bu doom ju góor juddoo nanga ko rey far gaal ga def liir ba teere ji ca wanagam fab jabaram far ko andi ne ko lii def liir bu góor la kooku la ca waroon tegu rek mooy rendil ndax at mi dañ ne woon ku judd nañ ko rend mu ne ko waaye déet noonu dañu amul doom te kii kat man damaa gis muy liir bu rafet teg ma ko may rek moom ma garde ko faw ñu yare ko ci biir kër firaw nu wutali ko ku koy nàmpal mu di ko fay faf ñu dem jëli mbokkam indi ko faf mu di ko nàmpal ñu di ko fay faf noonu la ko yàlla sàmme ba delloo ko ndeyam wëlbatiku def ko yonent na mu ko waxe woon kon yaqiin ci lu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ndigali sunu borom jaam bi waru ci am yaqiin xaanoon yim teg ne nii la muy ay luwaayum teg noona rek la mën a dem loo ci seet te ànd ci ak yaqin da ngay dajeeg moom gis ko na ko borom bi tabaraka wa taala waxe kon yaqin muy ak wóolute bokk na ci charte yi nga xam ne mënuñoo ñàkk ci gëm laa ilaha illallah doo am déng-déng ci ku taxawoon ci sa kanam di jommale wala mu yor kéemaane adduna ak li ci biiram di naaw ci jaww ji di dugg ci ndox mi di génnaat di suulu ci suuf di wax na taw mu taw na séwét mu séwét du tax nga jàpp ni kii yeyoon na dara ci cër yàlla benn muy nit ku baax wala mu nekk nit ku bon rek su dee nit ku baax mbir yi muy def nii moom la concerné su fekkee ne ku bon la seytaane la te iblis ko gën a bari ay kéemaan su ko defee yàlla nekk fa mu nekkoon ci sa xol te kenn mënu koo yëngal ñetteelu charte ba mooy al ixlaas al munafi li shirk mooy sellal tawxid bi muy laa ilaha illa allah ak sellal boo xam ne bokkaale mënu caa ànd borom bi nee na ala lillahi diinu alxaalis diine ju sell ju jaxasoowut ak dara borom bi tabaraka wa taala rek moo ko yeewoo borom bi nee na wa ma umiru illa li yabudu allaha muxlisina lahu diin nee na digaluma leen lu dul ngeen jaamu yàlla te sellal ko na yàlla rek tax ci saxiixu muslim xadiisu abi hurayra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi daf ne ana awna shurakaai ani shirk ne man maay ki gën a doylu ci ñi nga xam ne dañ leen di bokkaale ak keneen ndax man kat ku jëf-jëf maanaam ku jaamu ak jaamu boole ma ko ak keneen nee na danaa ko bàyyee ak keneen ka te nag ëllëg du am lu mu la faye maanaam bokkaale ku ko def ci sa jaamu yàlla di wax ne lii dama ko defal yàlla ak diw moo tax ma di ko def yàlla nee na man génn naa ci bàyyi naa la ak diw ba xam nag ëllëg fu ngeen bokk jëm mbokki jullit yi sellal muy jëf ju sell joo xam ne yàlla kese kese kese ko tax a jóg li fee jaam bi demul ba àgg ca la muy def ak la muy wax yàlla tax kooku noppalu dikkagu ko dikkalagu ko fii ci àdduna waaye ay jëf yu muy jariñoo it amagu ko ëllëg ci àllaaxira ñàkk a sellal dana tax jëli jëf yi gën a sell ci jëf yi nit mën koy jëf te bu ëllëgee du ci jariñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñu koy nettali ci benn xadis nee na borom bi tabaraka wa taala bu yowmal qiyaamee ba mu wàcc di atte jaamam ñi nee na mboolem fu xeet ma sa jóg jóge wala ku ma sa juddu ñépp dañuy sukk seen bëti room seen bëti woom ci suuf ne groupe kullu ummatin jaasiya ñëpp naan groupe di xaar résultat bi nee na ka muy jëkk a woo moom sunu borom tabaraka wa taala mooy koo xam ne jàngkatub alquran la woon kam cay teg nee na mooy koo xam ne da doon xeex fi sabilillah bañ rey ko kam cay teg nee borom alal ju bari la joo xam ne da doon joxe nee mu daal di wax ki doon jàng jàngkatu alquran bi ne ko waaw yow xanaa joxuma la woon xam-xamu alquran bii ma wàccee ci yonent bi nee na mu ne ko kay yow sa borom nee na mu ne ko lan nga ca def nag li nga xam ci xam-xam boobu loo ca jëf nee na mu ne ko man day alquran dama ko daan jàng ñu guddi ak bëccëg nee na bu daaneelee borom bi danaan ko kadabta fen nga ne malaayika yi teg ca ne ko kadabta yàlla ki malaakaam kon ñu ne ko fen nga borom bi ne ko déet da nga doon jàng ngir ñu wax ne kii moo mën a jàng alxuraan kii moo neex baax nee na te loolu wax nañ ko kon jël nga la taxoon nga di ko def ci àdduna ba nga koy def da ngaa bëggoon ñu tàggal la tàggoon nañ la kon jeexal nga amoo ci leneen xoolal ixlaas ni muy def foofu moo fi dàq jàng alxuraan kii nangam kii nangam su ko defee nga daal di fàtte la taxoon ngay sàkku alxuraan nga xam seytaane mu rëy ngi foofu ñaareel ba ne mu daal di indi ki nga xam ne moo doon jihaad wala ki nga xam ne mooy borom alal ja sax ne ko yow joxuma la woon alal ju yaatoo mu ne ko kay borom bi ne ko jox naa la alal ba aaji woowoo kenn de mu ne waaw mu ne ko loo ca def mu ne ko day daanaa ci jox ko ak bokk di ci sàkk sarax li ci def nangam li ci def nangam mais bu daaneelee borom bi ne ko waxu dëgg malaayika yi jaar foofa borom bi ne ko yow kay da nga doon joxe ngir ñu ne kii dafa tabe te loolu waxoon nañ ko nee nañ la woon da ngaa tabe kon da nga ca bëggoon am nga ko ca su ko defee ñi indi ki nga xam ne da doon jihaad bañ rey ko ñu ne ko yow ci lan lañ la rey mu ne ko yow yàlla yaa digle woon ni jihaad leen fi sabilillah nee na ma génn di xeex ba ñu rey ma borom bi ne ko waxoo dëgg malaayika yit ne ko waxoo dëgg yàlla ne ko yow kay da nga doon xeex ngir ñu ne kii jàmbaar la te loolu waxoon nañ ko kon jëloon nga sa pay muy waxoon nañ ko jooju Abu Hurayra mi nettali xadiis bi nee na bi yonent bi nettalee ba agsi foofu nee na mu dóor loxoom ci sama pooj dama yow Abu Hurayra ñett ñooñu day mooy ñi ñuy jëkk a dugal sawara ci bindeefi yàlla yi ëllëg mbokk julli di xadis boobu bu mat di teeylu la di ko teewlu di ko jàng di ko jàngaat di ko settantal kenn ku nekk la la yàlla jox moo xamub xam-xam la moo xam jàngub alxuraan la moo xam daraja la fii ci àdduna moo xam ab man-man la moo xam ab xarala la la ngay def nga xool bu baax yàllay kese tax ixlaas moom yi day mooy tax a jëriñu ci jëf yi tawxiid beet muy wéetal yàlla ji laa ilaha illa allah ji lu wax ji bari bari bari ak loo ko maîtriser maîtriser ci téere yi mokkal ko mokkal layya te dundoo ko yëg ko yëg na sa digganteeg sa borom la yoonu kenn nekku ci bu ëllëgee wala yaasu billahi ab sapaan rek moo ciy jóge yàlla nu borom bi tabaraka wa taala musal ci loolu ñeenteelu sart bi mooy dëggu dëggu koo xam ne dafay soree lool ak wax loo xam ne lu amut la la ci gannaaw dëgg dëggu koo xam ne dana musal nit ki ci fenn waaye dana ko musal ci ak naafeq mooy wane loo xam ne lu bokkul ak la ca biir la dëggu mooy li ngay wax ci saw làmmiñ na nekk ci sab xol nekk itam ci cër yi ndax kat su nekkee ci làmmiñu kese wi donte li nga wax dëgg la du dëgg moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu wax ne ida jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu inna almunafiqina la kadibin la kadibun nee na naafiq yi buñ dikkee fi yow dañuy wax ne yow de seede nan ne yaay yonentub yàlla xanaa jooju wax dëgg la waaye borom bi nee na yàlla xam na ne yaa di yonentam waaye xam na ne it naafeq yi dañuy waxuñu dëgg waxuñu dëgg lu tax li ñu wax ci seenu làmmiñ daa bokkut rek la nekk ci seeni xol kon wax ji nekk ci làmmiñ bi du doy ashhadu an laa ilaha illa allah wala laa ilaha illa allah yoo xam ne da nga koy zikr guddi ak bëccëg di ko jàngee di ko def foo yëngoo ne laa ilaha illa allah ci làmmiñ wa te laa ilaha illa allah yooyu àggul ci xol bi dundoo ko doonut laa ilaha illa allah joo xam ne mooy jëriñ ëllëg kon yëmut ci aw làmmiñ waaye daa war a ànd akum dëggu borom bi tabaraka wa taala nee na alif lam mim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaclamanna allahu alladina sadaqu wala yaclamanna alkaadibin borom bi tabaraka wa taala nee na nit ñi buñ yaakaar ne dañuy ñëw rek ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu bàyyi leen noonu waaye danañ leen nattu ba feeñal leen ku ca dëggu ak ku ca dëgguwut ñi xam natt boobee fa muy amee mooy tegandaay yëla sharia bi teg ndigal yim lay sant ak tere yim lay tere saa boo continuer di def lañ lay tere xamal ne déclaration ba nga defoon ne ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah dëgguwut ndax yaa ngi def lu koy firi bu dee wax neke noonu kon ki xas def engagement boobu moomatul boppam dafa jox boppam sunu borom tabaraka wa taala ngir mu dëggu nag ay jëfam day dëppoo ak déclaration boobu mu def ñëw na ci xadisu Muaz ibni Jabal radiallahu taala anhu fi saxixayni yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbihi illa xaramahu allahu ala annar nee na amul benn jaamu yàlla buy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waaye nee na saadiqan min qalbihi fekk lu dëggu la ci xolam nee na lu dul yàlla xaraamal sawara ci aw yaramam kon dëggu googi nekk na lu munta ñàkk nit ki nag ni ma ko waxee léegi ngir mu natt boppam ci ak dëggu na xool ay waxam ak jëfam ndax dëppoo na ba ci suuf jëflante yu sew sewaat yi ñuy def di leb di delloo nit wan la gannaaw ngay wax ci moom xool bu jaaduwut jéego yu jaaduwut noonu nit ki di sàmme boppam ak dëggoom ci loola ci lay feeñ kon war na na xool suñu bopp nun fan lan tollu ci li nuy wax ak li nuy jëf nuñ nuroo war nanoo xool fan lan toll ci responsabilité yi nga xam ne moom la yàlla teg ci loos yi kenn ku nekk responsabilité ba nga am sa diggante njaboot ga doom ya soxna ya soxna yi itam seen diggante doom ya kenn ku ne la la yàlla méng muy sa responsabilité la ko tàmbalee ci ka gën a suufee ci société bi ba ca ka jiite société bi yépp kenn ku ne sa responsabilité fan nga ci toll fan la sa njàqare toll ci soo deful xaqi responsabilité jooju lan moo ci mën a tege ci sa kaw dëggu gi nañ ko xool foofu yi fan lan toll ci sawar ci saa bu julli jotee nu jóg dem julli ci fan lan toll ci tudd yàlla ak sellal ko fan lan toll ci njàngum alquran te yàlla tax fan lan toll ci dëgër ci principe yi nga xam ne moom lan gëm ba doo ci déng-déng doo ci dellu gannaaw fan la fan la jigéeni jullit toll ci am colom nan la dëppoo ak laa ilaha illa allah tànkam bu gàtt kersaam fan la toll ci laa ilaha illa allah kooku yëpp ay nattukaay la yoo xam ne kenn ku ci nekk mën ngaa nattu sa dëggu ci xam yow mii yàlla tax ngay def wala déet ak ndax lii nga déclaré ba ñëpp dégg ko dëggu nga ci wala am nga ci déng-déng juróomeelu charte ba nag mooy baatub laa ilaha illallah ci boppam des ko war a bëgg bëgg itam lum jur ak lépp lu ca aju dafa war a sedd xolub jullit ci qisas yi bani israil dañuy nettali ci ibrahim alayhi salaam doon kat xisas yooyu des koy wéttalikoo rek léeg-léeg ci biir daawa waaye alxuraan nettaliwaatu ko doonte du lu alxuraan nettaliwaatu rek amut waaye mi ngi ci téere banu Israël ñu ne Ibrahim alayhi salaam bi nga xamee ne woote na woote kenn gëmu mu sonn ca lool ci kàddu tawxiitam googi laa ilaha illa allah mooy kàddu gi mu doon yëkkati di ca woote nit ñi yeex koo gëm lool mais benn bis dafa nekk ci aw xur di sàmm ak juram alayhi salaam jur ga bari lool ba xaw a fees xur wa nee ñu iblis daal di ree ah jaamu yàlla bi doon woote tawxiid nag de tey moom adduna gañe na ko ne borom bi tabaraka wa taala ne ko demal nattu ko ci baat bi mu doon woote ba xam adduna gañe na ko mu déet ne iblis jékki-jékki yëkkati kàddu gu xumb goo xam ne ibrahima a ngi koy dégg daal di ne laa ilaha illa allah ibrahim bég ci kàddu googu geesu xool xool gisul kenn ne ak a neexoon ma déggaat gi kàdduwaay kooka ne ko boo ma joxee sa genn wàllu jur gi day ma waxaat ko mu ne ko waxaatal te jël lépp waxaatal te jël lépp nee na fantakas nee na iblis foofa la xame ne kat kim defoon ne daa bàyyi tawxiid ba ba adduna jaral ko ndekete adduna gañeegu ko jullit bi tawxiid foofu lay àgg ci xolam day dem ba mooy li gën a neex ci moom ci li mu am adduna ak li ci biiram lépp na dem waaye na dese tawxiid lu nar a yóbbu tawxiidam lu nekk na yóbbu aw fanam wala mu yóbbu alalam foofu la koy toll du yemale yàlla ak dara mukk borom bi nag ni mu koy nettalee nee na wa min annaasi man yattaxidu min dunillahi andaada yuhibbunahum ka hubbillah nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wutal yàlla moroom ba noppi bëgg leen ak mbëggeel goo xam ne mooy nañ war a bëggee seen borom tabaraka wa taala ñu bëggee ko ñooñee maanaam la yàlla yeeyoo ñu jox ko doomu aadama wala ñu jox ko mbindeef moo tax mushrikoon yi bokk na ci seenug rëccu ëllëg mooy yemale giñ doon yemale yàlla ak liñ doon jaamu te du yàlla wallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawikum bi rabbil alamin foofu la ñu reconnaître ne nun day ñu réer lan woon ba nga xamee ne noo ngi leen di yemale ak borom bi tabaraka wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yetta ngi yoo xam ne kum daje ci sa xol da nga mos neexaayu gëm yàlla yàllaa ko yonentam gënal ko leneen lu dul loolu yàllaa ko yonentam gënal ko leneen lu dul loolu kon ñoo ngi del si ci ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ku muy bëgg itam da lay bëgg ngir yàlla ñaareel baa boobu ñetteel ba nee na mooy mu bañ a dellu ci kéefër gannaaw boo xam ne yàlla musal na ko ci ni muy ragale ku ko sànni ci sawara